ndey bu sa baay mbàkke mi taamu moo ne ci alaaji fàllilu ne leen ma juumoo ndey leen ma ji alaaji Fàllilu ne la réew mi taamoo Baay Mbàkke la réew mi taamu moo ne ci Alaaji Fàlliloo ne leen ma juumoo tey bu sa Baay Mbàkke Fàlliloo la réew mi taamu Sëriñ Abo di Alaaji Fàlliloo ne leen ma juumoo Fallu ndey bu sa Baay Mbàkke Baay Mbàkke la réew mi taamu ci alaaji fàllilu ndey bu sa baay le réew mi daamoo alaaji Fàllilu ne leen ma juumo sëriñ Fàllilu tey bu sa baay Mbàkke waaw waaw ba réew mi taamu Fàllilu mu ne ci alaaji Fàllilu ne leen ma juumo sëñ Fàllu wàllum ndeyam di wàllum Fàllu yaari maamam yaari maamam fallu yaari maamo yaari maamo ndem di baayam baayam ay ni jaayam yaari fallu wallu ngayam di wallu waaw waaw yaari maamo mbakem bu soobeem di baayam baayam ay ni jaayam falli loo ndayam di baayam baayam ay ni jaayam falli loo ndayam di baayam ndayam di baayam baayam baayam ay nijaayam di baayam baayam ay nijaayam di baayam di baayam ay nijaayam di baayam baayam ay nijaayam baayam di baaya bay na jaayam fàtte nga kii la. saa bara baab téere demul ci sëñ Fallu. waaye yàlla. yàlla ko leeral. te nga kii la. saa bara baab téere demul ci sëñ Fallu. demul ci sëñ Fallu. yàlla ko leeral maam awa awa. te nga kii la. Fallu te ko leewu maam awaawa te nga kii la yàlla kii ka garab lee du nekk wiin ana ci wàllu bàyyi fi paas ak paas réew mi neex na Fallu Mbàkke bàyyi fi baas ak paase mi neex na ndax ndax yi sagaraf leen lu nekk wéy na fi baas ak paase mi neex na ndax fi baas ak bàyyi fi paas ak paase. fi paas ak paase. réew mi neex na. moo ko fi def koy paase. réew mi neex na. jafe sëriñ Fallu wax ko jaadu na la jafe woon ci yow lépp yomboon na waaw waaw jërëjëf sëriñ Fallu waaw waaw wax ko jaadu na jërëjëf sëriñ Fallu jaajëf wax ko jaadu na jërëjëf sëriñ Fallu wax ko jaadu na jëfe sëriñu faral di jaajëf wax ko jaadu na jërëjëf sëriñ faral te baayu mbir wax ko jaadu na fanilo jërëjëf sëriñu faral di jaajëf wax ko jaadu na jërëjëf sëriñ faral fanilo wax ko jaadu na ak paase sëñ Fallu la jëfe woon ci réew naa bàyyu mbeen Fallu la jëfe woon ci réew mi lépp yóbbu naa Fallu loolu wax ko jaaduna Allah ji fallu bayu sëriñ aboo moom say faal bayu sëriñ xabaan bayu sëriñ abdu fataa bayu sëriñ takko sëriñ fallu mbàkke daq na xiif ak raf leelu nekk wii naam bayi fi paas paase sëriñ fallu réew mi neex naa jaajëfe Serigne Fallo jaajëfe Serigne Fallo jaajëfe Serigne Fallo jaajëfe Serigne Fallo jërëjëfe Serigne Fallo jaajëfe Serigne Fallo jërëjëfe Serigne Fallo jaajëfe Serigne Fallo jaajëfe Serigne Fallo jaajëfe Serigne Fallo jërëjëf Serigne Fallo jaajëf Serigne Fallo noo bëgg Serigne Fallo jërëjëf Serigne Fallo noo bëgg Serigne Fallo jaajëf Serigne Fallo weeram ba terati na jërëjëf Serigne Fallo weeram ba terati na jërëjëf Serigne Fallo jaajëf Serigne Fallo noo sant Serigne Fallo jaajëf Serigne Fallo sant Serigne Fallou. jërëjëf Serigne Fallou Serigne Fallou Baye Mbaye. jërëjëf Serigne Fallou Serigne Fallou Baye Mbaye. nan sant Serigne Fallou Serigne Fallou Baye Mbaye. aywa man sant Serigne Fallou Serigne Fallou Baye Mbaye. Baye Serigne Karim Mbacké Serigne Fallou Baye Mbaye. jërëjëf Serigne Fallou Serigne Fallou Baye Mbaye. jërëjëf Serigne Fallou Serigne Fallou Baye Mbaye. Serigne Fallou noo bëgg Serigne Fallou yaa bëgg Serigne Fallou maa bëgg Serigne Fallou noo bëgg Serigne Fallou Serigne Fallou baayu mbéy. noo bëgg Serigne Fallou Serigne Fallou baayu mbéy. Serigne Fallou fay na bor ba Serigne Fallou baayu mbéy. Cheikh Fallou fay na bor ba Serigne Fallou baayu mbéy. moo sargal seera faale sëriñ Fallu baayu mbeen moo ne lampu seera faalo sëriñ Fallu baayu mbeen moo ne lampu seera faale sëriñ Fallu baayu mbeen dami mama woppu soo sëriñ Fallu baayu mbeen su rajo bi noonu Sëriñ Fallu rajab la feeñu magal Sëriñ Fallu baayu mbeen borom Serigne Fallou Baye Mbène borom Kazu Rajab Serigne Fallou Baye Mbène borom Kazu Rajab Serigne Fallou Baye Mbène borom Kazu Rajab Serigne Fallou Baye Mbène Serigne Karim Mbacké Fallou Rajab la woote dinde Serigne Karim Fallou Mbacké Rajab la woote dinde Serigne Abo Fallou la woote màggal. rajab la feeñ ñu màggal Serigne Fallou Baye Mbe. Serigne Fallou fay na bor ba Serigne Fallou Mbacke waaja. mane la poussière falo Serigne Fallou fay na bor ba. Fallo Serigne Fallou Baye Mbaye moo ne lamp Serigne Fall Serigne Fallou Baye Mbaye moo ne lamp Serigne Fallo Serigne Fallou Baye Mbaye moo ne lamp Serigne Fall Serigne Fallou Baye Mbaye leeram ba terati nawa Serigne Fallou Baye Mbaye moo ne lamp Serigne Fall Serigne Fallou Baye Mbaye Darou Salam la feeñe Serigne Fallou Baye Mbaye moo ne lamp Serigne Fall sëñ Fallou Mbaye rajab la feeñ ñu magal sëñ Fallou Mbaye Mbène. moo ne la mu seera faal sëñ Fallou Mbaye Mbène.